Mamor Ndiouk nekk dëkk Touba Daaru Xudoos waaye aussi nekk étudiant nekk ci keppaaru maître Madické Niang di di ko liggéeyal waaye aussi nekk ci keppaaru ñoom kundul mi suñu coordonnateur di liggéeyal maître Madické Niang fii ci Touba mais aussi au niveau national ñu àndante ko ak équipe boo xamante si nii lépp lu ñu mën di ñun waaye équipe boobu la lu waral tey waaw woote bi li ko waraloon mooy bëgg a jëmmal Madické Niang fii ci Touba ndax dañu xam ne moo nekk ci xolu waa Touba waa Touba moom la ñu bëgg si heure bu ñu demee élection ñu wane ko ginnaaw nag toll nañ ci phase bi nga xamante si moo ci gën a déterminant muy phase parrainage ndax bala ngay nekk candidat bay dem élection ñu lay fatee ci bureau de vote yi. Hmm. da ngay dañuy valider sa parrainage ba pare. ñu ne nañu dem ci population yi nga xam ne bëgg nañoo parrainel Madické Niang waaye xamuñu fu ñuy jaar. Nous wàcc ci ñoom looloo waral ñu jël 48 heures d'activité. mu nekk samedi bi ñu genn demb ak dimanche bo xamanteni si on a eu à sillonner demb ci samedi bi les les zones les plus zones yi nga xamanteni ñoo gëna concentré ci Sénégal ci Touba muy marché Ocass bi ñu marché daru Xuddoosi ci lañu tambalé amé fi ay parrainage yu bari jóge fa dem marché Ocass ba ñu fa jógee ñu dem corniche Guédé jóge corniche Guédé dem garage daru jóge garage daru dem Mbaar ya jóge Mbaar ya dem corniche Serigne Cheikh

dañu doon wax na ma dikk lu mu dédé dee na fi am 50 mais on lance un défi ci élection yaangi suñu kanam plus de 70 dañu ko am ci élection yi bi soobee yalla ci loolu lér na ndax wa Touba ñoko ko waneel seen bopp wàcc gi ñu wacc nak amna lu mu wané ndax dem wacc nañ paré né tay ji ni ñu dem ci mbootaay yi nga xamné doon nañ liggéey ak ñom ñu jàppale ñu yëkëti ay parrainage yu bari jox ñu tay ji fi ma tok di wax yow 48 heures yi andil nañu plus de 400 parrain mhm. ci maître ma dikk ñaan lañ ko yobbu ndax té wa Touba ñoko bëgg nee nañ parrainage ñun yeex nañoo jug Macky Sall yóbbu na lépp ñun de ci 48 heures am nañ plus de 400 parrain yaakaar naa ne Touba bu fekkoon ne bëgg nañu Macky Sall wala du du ma Madické Niang moom la ñu def seen xol loolu duñu ko loolu duñu ko loolu duñu ko am tey nag mbootaay yi nga xamante ni doon nañ liggéey ak ñun <coughs> ci ndigalul maître Madické Niang ñëw nañ fi andil leen ay matériels yoo xam dañ leen ko jàppale yoo xam moo choisir na ñu jël lii defal leen ko mm-hmm. donc kon moom moo leen defal lii waaye du ñun ñoo leen ko defal mm. ay ndawam lañ rek nekk ci terrain bi andil nañu ko li te inshallah li dañu bëgg muy continuer bu ñu sañoon chaque 15 jours ñu jël weekend ñëw def li ba keroog parrainage bi di jeex ndax xam nañ ne waa Touba bëgg nañ ko Seyid moo ngi si seen biir xol. Euh, ci walu élection peut-être am ngeen seen son bu Mbàkke waxam yag na ci té élection Touba. Mm-hmm. mais té yéen en tant que jeune est-ce que am nga seen matuwaay bop yu ngeen mëna jël ngir mëna a jëflanteeg ndawi APR yi ci walu lépp lu jëm salfaañe élection yi. waaw yaakaar naa ne loolu ñun am nañ ci expérience. parce que élection locale bu ndaam amee élection ñun ñoo tax et le monsieur le préfet bi fi nekkoon mën na ci seede ndax taxawoon nañ ci salvagne élection yi kérok dañu jël les étudiants mu suñu leena jël ngir ñu def euh, euh ñu nekk les présidents des bureaux de vote ainsi de suite musta am Touba ñu ñëw ñu choisir ñu ñu ñëw keroog man bokkoon na ci ñi jité won étudiants yi ñu doon andi ñu def 5 bis monsieur le préfet mom moko fay nous paré né de paré ñu dina fay étudiant bu nek 12000 ñu ñëw jot éco comme quoi dañu bëgg a saboter élection yi ñu choisir les étudiants ñu l'attendons on avec pied ferme ñu ñëw biñu ñëwé la majeure partie des étudiants yalla def ma bokkon ja ndam arrondissement la ñu nekkoon plus de 200 bureaux de vote biñu ñëwé à nos grandes surprises ci 8 heures bi fekkuñu fa dara table rase ma dem ci monsieur le préfet ñu ne ma daa génn ñu nekk fa di lijjanti fekk nañ ñun bi ñuy ñëw fekk nañ fa mbooloo moo xam xamuñ nu mu toll ñu ñëw di ne ñoom dañoo bëgg a voté ñu nekk ca loola nekk ca loola ba 11h monsieur le préfet nañu matériel bi fi ñëwut waaye bu matériel bi ñëwut ba heure bii ba midi damay arrêté élection yi ma ne ko monsieur li nga wax mënta nekk. ndax loola dañoo defoon taf taf ci journée bi dañoo teg benn lu mel ne genre groupement rek président bureau do vote yëpp nekk ca ma jiite wu woon. ma ne ko ñii nga gis sama ginnaaw ñëpp ay président bureau de vote la élection bu amul sa sa mbagg lay am yow na la leer na élection dina am fii ou bien bépp Touba élection du fa am te loola moom ñun ñooy defal suñu bopp porte plainte te contre yow la ñuy porte plainte dane woon matériel ñëw ci magasin yi la tij ne matériel baa ngi yóbbu ko ci bureau de vote ma ne ko dara lañu yóbbuwul mais waa Touba bëgg gi bëgg Ablaye Wade ca booba bëgg gu ñu bëgg laa def ko seen xel paa yeeg grand ñoo ne ñoom ñooy jël matériel yóbbu ko ci bureau de vote hmm. seen bopp ay seize président a wala de vote pour ñu hmm. en tant que président bureau de vote dama taxaw 8 heures ba 18 h ba élection ba affaire man de arrondissement voté andil nañ ñu préfet bu li ngay wax xam nañ ko. Hmm. élection yi ñu andi ko fi. Hmm. on avec pied ferme. duñ def Touba élection dina fi libre et transparent. C'est <coughs> dañu fi duma Macky 5 te nag dinaa leen xamal dara Touba 992000 électeurs mo fi nekkone avant enrôlement bi té leer na 10 pour na ci kon on est plus de un million. famu mu muy Matam ak fatik la commune de Touba dépasse largement les deux raisons mhm. additionnées Raison de Matam plus région de fatik commune de Touba rek moko ko ëpp waxuma le département de Mbacké mhm. président Macky Sall na ko 5 du ko am ndax wacc nañ ci terrain bi ci Touba du fi am dara. Mhm. inshallah li tax du fi am dara moy wa Touba ñoko ko sen bop ndax day laytoo waa Touba ci defalu leen dara.